waaye oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ma ne jàngal na ma doy na ko ma ne doy na ko tiitar ak kuukare ne organisation bi nga xam ne moo nekk diggante Maroc ak Sénégal bu borom xam-xam yi moo njëkkee doon secrétaire général bi seede boo xam ne maa ngi koy wax tey te yaakaar naa ne mu ngi door dugg ci noppam wala man waxuma ko ko toog naa ak Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mu am fu waroon a dem am ngànt mu téléphoné baram fekk mu nga tukki wax ak moom ne na continuer bàyyi lim nekkoon dem foofa fekk mu ngi doon préparé am lu mu doon bind mu daal ne jaru ko am na ku mu ko doon dicté nga di ko bind mu ne jaru ko comme jot nañ baraam baraam fu mu teew maa fa teew ci jëmm ci melo ci zahir ak baatin te lu mu wax maa ko wax lu mu bind maa ko bind ma ne loolu doy na ko puukare doy na ko ñu seedeel ko ko ba péncam yàlla